Njaay ameke hata duwaloy hey, Papa Njaay yoo oh, nene nene Njaay nene xaar jaar juwalo waaw a Papa Njaay oh, oh, jox naa ko yow moom yow moom tu es belle tu es santé waa benn taalibe Serigne Saliou Mbacke borom njàpp ndar borom xabaan borom dokaan madame madame les Cheikh Niane avec les toujours le notre cœur les Cheikh Niane Cheikh tamit il est notre cœur les madame parce que benn il est notre le cœur les les les Cheikh mais Cheikh Niane tamit il est madame les notre kon je le MLA MLA waaw parce que ah waay benn waay benn ñëwati waaye ah, parce que ah, Cheikh ton cœur ton cœur toujours de eh, eh, MLA waaw parce que les MLA les toujours là kon maanaam les Cheikh ñaan Cheikh nous sommes des griots nag avec le donné les les waaw waaw prend prend waaw Cheikh ñaan du ko seetaan mu fii ñaaw aw leen waay Cheikh ñaan du ko seetaan mu fii ñaaw eh waay ñi mel ay géer waay. Cheikh ña du ko seetaan mu fii ñaaw. eh Cheikh du la seetaan nga fii ñaaw. eh Cheikh du la seetaan nga fii ñaaw. Cheikh ñaana ngi. Cheikh ñaana ngi. Cheikh ñaana ngi. Cheikh ñaana ngi. Cheikh ñaana ngi. bilaay Cheikh ñaan. ey aka baax. Cheikh aka gore. aka bëgg waali. Cheikh aka baax. billaay ak a gore ak a bëgg waali waalee la bëgg ey ak a gore waalee la bëgg seex ak a gore waalee la bëgg billaay ak a gore waalee ko bëgg seex ñaana ngi waalee ko bëgg taalibe sëriñ saaliw waalee ko bëgg doomi ndey seex ñaan waalee ngi nii taalibe sëriñ saaliw waalee ngi nii billaay ak a gore yaa bëgg Cheikh ñaan Mbacke Mbacke ak Maram ak ay sax Sadio Maam Jaara Buso séeri Cheikh ñaan séeri Cheikh ñaan wax leen séeri Cheikh ñaan séeri Cheikh ñaan séeri Cheikh ñaan wax leen séeri Cheikh ñaan séeri Cheikh ñaan séeri Cheikh ñaan ana séeri benn ana séeri benn ana séeri benn ana séeri Cheikh ana séeri Cheikh ana séeri Cheikh wax leen séeri Cheikh ñaan séeri Cheikh ñaan séeri Cheikh Niane wax leen séeri Cheikh Niane ana séeri bel séeri Cheikh Niane eh ana Mali bu tàkkulu Mali Congo leen Mali eh ana benn taalibe Serigne Saliou Mbacke sa séeri ngi eh séeri Cheikh Niane séeri Cheikh Niane eh ana séeri benn séeri Cheikh Niane ñaga ana séeri benn séeri Cheikh Niane hey ana séeri benn séeri seex ñaan séeri seex ñaan wax leen séeri seex ñaan hey ana séeri benn séeri benn a ngi séeri seex ñaan séeri seex ñaan séeri seex ñaan séeri seex ñaan wax leen ana séeri benn ana séeri benn ana séeri benn nga gën a fonk ci àdduna mooy mooy nit ki ñu gën a xeeb nit ku ñu gën a suufeel nit ku ñu gën a jàppewul boole wuñu ko ci nit ñi kooku la waali di jël def ko ci biir xolam bi di ànd ak moom def ko ci nit boole ko ci nit ñi dimbali ko ba muy dimbali waati kookoy waali barki Alaaji Baara Cheikh ñaan nag bi mu ñëwee fii ñun la fi fekk waaye daa ñëw nag ànd ngor ànd ak jom ànd ak fulla foo ko fekk day kaf di ree foo ko fekk bu ñu demee tournée fu ñu mën a dugg Cheikh ñaan a ngay ree barki Alaaji Baara man bu bëggee kii sax man la ñuy woo ni ma ma ñëw fekk Cheikh ñaan toog ma ñëw xëcc ko kon nag yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla yokk taraanga ji yàlla bàyyi koo nag suñu docteur bi nga xam ni mooy 4-4 euh, ci biir tal ci ci kaw tali waaye ma kontaan lool ndax nit da ngay sotle sa nit man damaa bëgg kuy sotle nit sànq damay jógee Touba ci suba gi sëñ Abdou Fatah doomi Serigne Fallou ni ma xaali ñett yi de bëgg naa ko ci nit ma ne ko lan mënu ma nit ku fonk mbokkam te ku xam li nga doon yow nag xam nga li nga doon fonk nga sa mbokk man damaa bëgg nit kuy jàppale nitam da ngay ñëw ñëpp fu nga fekk fa ñëpp nga ñëw ba ci seex ñaan may ko xaalis wan ni ko man yow yaay sama deret man dama ciy kontaan barke Seydina Muhammad ndax nag yàlla dimbali na ma aw ma kenn koo xam dama lay xool lu nekkul ndax man waa ginnaaw yàlla ak yonent bi sama ñaari waajur waali teral na ma waali moom teral na ma ba noppi ma dara sant naa waaye yow da ngay ñëw ba ci kaw seen bi fekk fa seex ñaan mi taxaw nga ñëw bàyyi ñëpp ñëw ba ci kaw seex ñaan yëkkati xaalis jox seex ñaan sot la seex ñaan te man damaa kuy jàppale nitam kuy sot la mbokkam seex dama doon il y a parlé les olof mais euh, euh, euh, attends pourquoi avec sot sottes dans la maison mais avec les parle le olof pour le zone ton ami pour tous ton ami mais il y a des beaux cours les parler français pour il y nga comprendre parce que il y a cœur il y a xool euh, parce que Cheikh tu es belle tu es gentil toujours euh, cool parce que il y a euh, notre les avec les ramadan des rentrées de ramadan il y a beaucoup de instruments il y a de vous êtes les spectacles il est très bon Cheikh kon les baptêmes les fils santé l'argent mais dara c'est mon fils Tuwaal Waly sa fils. oui. gis nga Cheikh Mar Yacine may sa bige may sa bige Mar ajinaar ma ca njar Ndiar des ma ca Lambaay. Thione Seck ay bàyyam moom la ñuy jooytoon noppeegunu nee naa ko 92 laa 92 laa commencé dem bitim réew waaye bu ma buñ ñu xamee moo ñu xamale de yow segam yow mi bambara yaa jël xel mu rafet mi jëlal lii yow mi bambara segam jëlal lii Mm. waaw segam yow mii bambara. ata segam yow mii bambara. jóge Mali ñëw fii yaa am xel mu rafet mii yàlla may la fi doom nga nekk ak nit ba nim la def amoo loo koy delloo di ko delloo njukka jël doom ni doom foore tudde ko waali waaye tudde nga ko gaynde tudde ko jàmbaar tudde ko borom xol bu rafet tudde ko ku yaatu tudde ko koo xam ne bëggul dara lu ñaaw moo tax Serigne Saliou boo demee Touba ba fekk fa Serigne Saliou taxaw benn il y a beaucoup de

Faat Diop day soog a ñëw Faat Diop day ñëw nii Faat Diop lay lay lay lay arrivé. Fa Fa Fatou lay parce que les Fatou tamit il y a des ramadan les assez les les les arrivés les ramadan il y a des beaucoup de euh, santé Fatou Diop il y a beaucoup de santé. tu jur na doom ju ne ku ne jur na waaye di yomb a gis ku jur saaliw de. man ngaa wur ci àdduna bi ba mu daj pour nga gis ko jur doom ju doom ju tudd Serigne Saliou yombul Serigne Touba rek a mën a jur Serigne Saliou kenn mënantu koo jur Serigne Touba rek a mën a jur Serigne Fallou moo mën a jur Serigne Abdou Lahat barke Cheikh Ahmadou Bamba moo mën a jur Serigne Baara Serigne Abdou Serigne Serigne Touba rek kese kese kese moo mën a doon doomi Serigne Sidi Mokhtar Mbacké moo mën a doon tamit maami mun Mountakha Mbacké mii ci jal bi nga xam ne gudd fan ak wër xel mu yaatu maag mu rafet mu gudd ma may ñëw te gëm bàyyam ba wóolu yàlla yaakaar yàlla julli ci rasulaay gëm tu ba yaa bëgg nag seexul xaddim waaye yow ki nga bëgg a jër a bëgg moo jàpp ndongo yi du ñu yalwaani moo jàpp ndongo yi du ñu wuti añ moo jàpp ndongo yi du ñu xaaraani moo jàpp ndongo yi du ñu